ka amatina de sama gaay maa ngi leen di bu baax kii nag benn professeur la professeur d'université ak soxnaam nga xam ne femme d'affaires la maanaam daal couple d'intellectuels ñoo daje ndeysaan xam nga ñaari couple d'intellectuels moom foo leen gis rek ñoom temps duñ ko am kii bu xëyee mi ngi ci liggéeyam kii bu xëyee mi ngi ci liggéeyam bu ñu dajee ci kër gi toppatoo seeni njaboot régler seeni affaire bon xëyaat nekkaat ci seeni liggéey léegi waa ji nekk professeur d'université moom day xëy dem université jàngale ji walla sax moo xam mais am na yeneen business yoo xam ne tamit boole na ko ci léegi femme bi nga xam ne mooy jabaram nekk femme d'affaires moom du toog moom tamit pratiquement ci kër gi day xëy day voyager partout un peu partout dans le monde moom day dem li muy toog ci këram sax bariwul mais moom ndaw si yaayam dafa génn àddina moom femme d'affaires boobu léegi bi yaay ji génnee àddina xam naa bi yaay ji di génn àddina papa ji dafa dese woon ndaw papa ji daal di takkaat beneen jabar papa ji yàlla dimbali ko mu amaat ci jabar jooju njaboot daat ci njaboote ay góor ak ay jigéen sama gaay xale yi di jàng seen mag mi ngi nekk femme d'affaires seen seen seen seen demi sœur mi ngi nekk femme d'affaires yor jëkkëram di sëy mais ñoom ñu ngi jàng ñoom xale yi sama gaay xale yi ki ci gën mag daldi am bac bala moo am bac bala maa ñëw ci bi mu amee bac ba pare su ngeen bëggee ñu naanandoo kafe rek ngeen waaj ku bëgg rek na yëkkati kaasam man ak moom ñu naanandoo café mi xale bi am na bac papa ji ne ko comme sa grande sœur mi ngi Dakar yor fa këram te kër ga sax presque kenn nekku fa demal foofu nga jàngee ci université nga wéttali sa grande sœur xale bi daal di dem papa ji woo woo sœur bi ne ko sa rakk diw de yàlla dimbali na ko am na bac dama bëggoon mu ñëw foofu ngeen nga téyal ma ko mu jàng mu continuer étude foofu ci université bu ndakaaru ah sër bi ne ko pàppa man awma lu dul sama rakk yi suñu ñëwee dinaa leen uuf na ñëw oo oh, daal di kontaan ndeysaan ne ndeysaan am na bag a ah, jàmbaar la waay xale bi daal di ñëw hmm, cey yàlla Sénégal njaay man bala maa ñëw ci xale bi sax man xam nga lu ma bëgg a laaj man senegal lan moo xew nit da jël duggal la ci këram hmm? mais yow boo xasee ba dugg rekk yow sax xel mi yépp ci def ko lu ñaaw lay nekk te am na ñoo xam ne seen kër duñu nangu kenn jege leen nit ñi naan dañoo bon fekk bonuñu de billaahi bonuñu li ñuy ragal ñoom rekk ak yàlla ñoo ko xam te ndaw sii tamit indi na sœur bi ci kër gi pour sœur bi demi sœur bi pour na ñëw continuer ay études am université waa ji it nee naa leen professeur d'université la mu ne sœur bi comme man chaque jour damay dem université sa bi moom du am benn problème paas man dinaa koy dugal sama oto na teel a yeew rek préparer def li muy def ma yóbbu ko mu jàngi jarul sax muy loge fenn na toog fii rek ci kër gi xale bi ñëw ñu conseiller ko ndeysaan ñaax ko jox ko néeg maanaam xale bi mënul ne ñii def nañ ko lenn lenn lenn maanaam luñ ko defal bu doon seen doom bu ñu jur sax foofu lañu mën a yem ak xale bi waa ji bu xëyee dugal ko ci otoom yóbbu ko université mu jànge waa ji dëkkee noonu ak xale bi grande sœur bi moom su toogee ñetti fan ci kër gi mun na toog ñaari weer du ñëw ci kër gi am nañu tamit jànk boo xam ne mi ngi ci kër gi yor liggéeyu kër gi maanaam moom daal santuñu ko dara moom dañu ko jàngil ñëwal lekkal ba suur naanal ba màndi tëddal réviser point sa doom bàyyi defal la loolu te xam nga ne xam ngeen Sénégal ay temps problème mu doom bàyyi da doon bari jàppal bàyyi léegi xale bi su ko jëkkëru sër bi di yóbbu dugal ko ci otoom ndekete yoo ndekete yoo sama gaay bala ma ñëw ci ndekete yow ñu naan kafe yëkkati ngeen ah ay ca ñu naan xale bi jëkkëru sóor bi di ko dugal ci otoom di ko yóbbu muy jàngi bi mu koy yóbbu benn jour rekk xale bi daal jël loxoom xam nga rekk mu toog ci kanam rek xale bi jël loxoom teg ko ci pooju waa ji waa ji ne ko yow looy def nii xale bi avoué waa ji ne ko dama laa nopp <laughs> e waay aaxiru zamaan waay yow sa jëkkëru demi loo ci xool ba koy nopp yow jàng lañ la sant jàngal man maa waaru man daal man man wax dëgg yàlla de fois damay jot kaa yoo xam ne man affaire bi man ci boppam man daf may travailler jëkkëru sœur bi ne ko yow ku yebaate nga te éppi du ma sa moroom yow yow réew nga de yow mën ngay xool nga naan ma ay dama laa nopp éppi yow wow nga bët ah. nee na wàññi ko wàññi ko wàññi ko xas ko ba mu raab ne ko su ma amul woon lu may seet fii laa lay wàcce ci diggu yoon bi bàyyi la dem sama yoon yow ku bon nga xas ko daal xam nga rek ndeysaan am na góor yu am ful la nag góor yoo xam ne bu ñu xasee am seen jabar jigéen bu meloon ni per bu yàlla yàbbi mënoo leen a fëq parce que éducation dañ koo am njub dafa nekk ci ñoom moo tax buñ naan jigéen du rëbbi sooy dafa fekk ne rek ñu dajeeg waa joo xamante ne moom na mu ca yebu ca ndax xam nga ni kii maîtriser na boppam xas ko ba mu raab mais nag ndeysaan seet na waajuri ak it sër bi daal di koy yóbbu université mu jàngi mu wàcc xaaraat jëkkëru sër bi mu indiwaat ko kër ga wàccewaat ko ñëw nekk ci ay activité waa ji nag li ko xaw a jaaxal mooy professeuru d'université bi mooy que xale bi ñaari visage la yor pii na xale bi su sër bi nekkee ci kër bi xale bi dina wone yaru goo xam ne su ko sër bi nee diw bala moo eggale mu ne ko yaaram kallaa lu ko sër bi sant mu defal ko ko impact nee na xale bi woon sër bi yaru boo xam ne am na commencement waaye amul fin nee na moom muy gis bi ko xale bi defee lool nag ci la commencé seetlu xale bi ci kër gi nee na bu ñu nekkee ci kër gi ñoom ñëpp nee na xale bi day yaru trop ba moom sax danaan est-ce que kii moo ma doon def ay avance ci sama oto nee loolu nag mooy double visage te malheureusement Sénégal ba su xale bee feeñ mais àdduna bi presque nit ñi noonu la ñu mel léegi nee na sœur bi it fu mu toll di tagg xale bi naan non man sama rakk ji xaw ma woon nii la yaroo xam nga man kër ga dee fois dama fay xaw a këj mais kii yaru na de kii sedd na de nee na sœur bi di tagg xale bi naan dafa yaru bëgg ko nee sër bi daal jàpp na ne xale bi moom xale bu parfait la amul benn défaut nee na sama gars yi nag loolu mooy problème bi parce que sœur bi gëm na xale bi ne xale bu baax la xale bu yaru la xale bi jàngkat la ndax am na bac nee na ñu dëkkee noonu nee na ma ne nag man am naa problème parce que xale bi li muy won sama jabar ak ni mu mel diamétralement opposé léegi sama jabar mi ngi jàpp ne demi sœuram bi moo gën ci sœur yi te xale bi xam naa ne commencé na te xale bi ku wow bët la malgré professeur bi xas na ko ci otoom professeur bi nee na des fois ci kër gi ñoom ñaar rek bu ñu rombante nee na xale bi ba tey dafa ñàkk jom da koy piis ka kii aka lu nekk xale bi di ko ko def te nee na le problème en est que jabaram moom jàpp na ne xale bi moo gën ci xale yi nee mu dëkkee noonu affaire bi di ko metti xamul nan la war a def te mënatul a it euh, arrière ne yóbbootul xale bi sinon jabar ji dina ko poser question su ko posé question dootul xam lu mu koy wax. nee na mu continuer rek di ko yóbbu école mais nee na moom defatu ko ay avance mais ci biir oto bi moom xale bi manière bu ne dina ko def. manière bu ne nee na moom mu continuer dawalam du ko faale wàcce ko góoru ñibbi su jotee mu ànd ak moom ñibbi. femme d'affaires bi moom du toog ci kër gi jëlaat na ay bagaasam newaat na tir demati na beneen réew femme d'affaires la liggéey la xam amul sax temps xam nga femme d'affaires yi ndeysaan ñoom amuñu jot liggéey rek liggéey jaamu yàlla toog seeni kër di sëy nee naa femme d'affaires yi ñooy jigéen ñoo xam ne gis nga bu dul woon am jëkkër jaamu yàlla la yàlla moo ko santaane dafa bokk ci dund doomu aadama waat naa ci yàlla luñ ko am ndax amuñu sax temps ndax ñoom toppewuñu góor alal ñoom am nañu li ñuy am dañuy dang-dangi guddeeg bëccëg mais nag comme sëy jaamu yàlla la dafa bokk ci dundu doomu aadama en plus yàlla moo ko santaane moo tax ñu koy am mais les femmes d'affaires amuñu sax jot sama gaay ndaw si voyagé na waat voyage boobu nag ci la bomb bi explosé ñu naan ñu naanandoo kafe sama gaay léegi ndaw si dem na xale bi des na ci kër gi ak ginnaaw toolam du noonu la ah ginnaaw tool mooy sa jëkkëru sër walla yaa yaa gën a xam jour boobu weekend la tombeel xale bi des na ci kër gi moom ak ginnaaw toolam bon bi mi ngi ci waañ bi di togg te nee nañu kër gi ngandi kër la xale bi toog néegam ba mu yàgg xale bi génn dugg ci couloir bi dégg jëkkëru sër bi di sangu ci salle bain bi ba pare jëkkëru sër bi def erreur boo xam ne tëjul buntu néegam parce que même bu dee salle de nga yor booy sangu tëjal sa buntu néeg parce que en général yow buntu salle de bi danga koy taayee tëj da nga koy xaw a delloo noonu tuuti rek nee na xale bi daal di dugg ci néeg bi néegu grande sœur am cay xool gisul kenn nee xale bi summeeku rekk fekk jëkkëru sœur bi ci saldebin bi sama gaay yi xale bu ndaw nga am bac yow 19 ans soo ko amee ci la yem mu xool jëkkëru sœur bi ci bët xale bi wow bët ne jëkkëru sœur bi dama bëgg nga cukkum njaay ma jëkkëru sër bi nag nee naa leen ku am fulla la nee nañu ba mu bumaxee xale bi ki ma nettal histoire nee na ba mu ko bumaxee xale bi tuuti mu damm xam nga toilette bu tooyee nee na dafa gaawantu jàppaat xale bi ndax xam ne su ko gaañee day am gàcce nee na après nag mu dog ko téye ba mu am équilibre nee na mu doog a ubbiwaat bunt bi woddu sarvetam génne ko bumax ko mais nee na jëkkëru sœur bi mu ngi sóoraale jànq bi dégg leen parce que jànq bi su leen déggee mun na ko interpréter nu mu ko neexee nee mu téye ko naxtaan moom ba dugal ko néegam tëj ko fa nee na moom mu dem eggale sangoom sol ay yéreem doog a ñëw nag fekk ko ci néegam nee na jour boobu xanaa dóor rekk la ko deful lu nekk yàq na ko xale bi xas ko ba mu ràpp ne ko nag sonn naa est-ce que yow sama kër nag danga koy génn parce que yow mii ndekete baaxu xas ko xasa xasa xasa xas ba jour boobu xale bi li muy wow bët xasi dépassé na les bornes xale bi di jooy léegi nag sama gaay waaje ci boppam hmm, moom fi mu ne dafa am problème ndax problème bi mu am mooy xale bi duubul visage la yor visage bu baax bi wan na ko jabaram moom wan na ko visage bu bon bi te it déglu na jabar ji xale bi dafa baax te gis nga nit loo def ci sa xel buñ la ko bëggee yàquloo te xam nga les femmes intellectuelles boo leen dee wax dara ci ne duñ la gaaw a gëm ndaw waa ji nag nee na moom problème am léegi foofu la dafa ne su jabar ji jógee voyage da koy wax li xale bi dëkkee ak moom mais nee na benn xel bi danaan ko soo ko waxee soxna si du la gëm parce que xale bi wan na ko ba mbaax ba moom bu tëddoon guddi di nelaw sax boo ko yeewee mu ne la xale bi dafa baax nee na day bañ wax ko jabar ji jabar ji du ko gëm wala xale bi xëy te bu ko waxul jabar ji aussi xale bi mun na xëy sosal ko ndax gis nga kuy tànte dara bu ko amul tante ko amul ñàkk jom ñu lay xas ngay ñàkk jom di ko def bu yàggee rek da créer benn plan plan boobu danga nga ko exécuter xam nga def na ko ay avance ci oto bi waa xas ko. léegi mu calculer ci xelam ne bu ko fekkee ci salle de bi waa dina tombe ci piège waaji bu max na ko ndaw xale bi dina préparer waat beneen plan te plan bi mun na am bu ko préparer dina dugal waa ji soit mu bàyyi ba jabar ji ne fi mu këpp ci kaw waa ji jiñ ko waa ne waa ji moo koy def ay avance waa ji nag nee moom problème boobu la am. soit day wax jabar ji ne ko xale bi nii la mel xamul ndax jabar ji dina ko gëm wala mu noppi te bu noppee day ragal xale bi xëy tendre ko piège ndax moom des fois sax day fàtte yenn yi ndax tellement que liggéeyam xam ngeen ne professeur d'université bopp bi kooku lu ci ne moo bëri na torop talul sax ay kii nee na loolu lay ragal nee na mbokk internet yi nag dafa bëgg ngeen trouver ko solution mu wax jabar ji xale bi li muy def wala mu noppi te moom day ragal su noppee xale bi xëy sosal ko wala tendre ko pièce boo xamante ne sëyam dafay tas te moom dafa bëgg jabaram beneen bi aussi mu ngi xalaat aussi su ko waxee détruire famille ndax xale bi dina décevoir kii di magam ndax mag ji wax dëgg yàlla du ko bëgg yaatal ko te mag ji dafa def ci xelam ne xale bi kenn gënu ko sama gaay mi ngi noonu waa man xam nga lu may bëgg laaj est Sénégal jarati naa def lu baax man man loolu laay bëgg a laaj xam nga bu njëkk ba dangay gis nit jël ay famille yépp héberger leen ci këram di leen jàppale du am benn problème mais léegi da ngay jël nit nga dimbali ko mais moom mi ngay dimbali mi ngi préparer ay plan pour tegal la ay ndëgg sëra léegi nga bàyyi nga bàyyi nga bañ leen a dimbali askan wi ŋàññ la kii dafa bon kii dafa soxor mu ngi pourtant nekk à l'aise mais ay mbokk ay mbokkam ñu ngi nee sonn jàppalewu leen waa léegi gars yi nag nan la nit ñi di def soo jàppalee nit mu jam la paaka ginnaaw nga nga réservé wu téye sa bopp ñu ne dangaa soxor waa léegi man question boobu laa leen di laaj ndax ñu continuer di jàppale te yàlla rek tax ñu ñuy pointé ay paaka ci ginnaaw après ñun ñu mujjee souffrance bi wala léegi dañuy toog seetaan leen ndax kat affaire yi mi ngi bëgg a dépasser les bon xale bu ndaw 19 ans yow yàlla dimbali na la am nga bac ah sa moroom yu bari seen njàng yàqu na ñu ngi woon ne seew am li nga am moo doom boo demee Dakar jàngal sa jëkkëru sër loo ci tegee sa bët yow jàngal ba am li sa sër am nit booy roy dangay roy lu baax waaye yow amoo looy def yow li ngay roy mooy fexe noo foqatee sa jëkkëru sër noo waa ji chapeau à billaahi nag chapeau à toi parce que xale bi mi ngi lay dugal mais nag man de su doon man la man hmm? xale bi dama koy génne sama kër toog wax ak ndaw si lu mel ni midi waaye nag comme yow yaa ngi sóoraale nit ku baax nga moo tax ngay sóor sama gars yi histoire baa ngi noonu euh, waa ji nee na moom ndax dafa war a wax jabar ji li xew wala dafa war a bàyyi noonu te bàyyi noonu bi aussi lim ciy tiit mooy xale bi xëy rek sosal ko mu ngi noonu mbokk internet yi tey lii lañ leen indiloon na ci nettali di leen jox dig daje ci yeneen i nettali ak yeneen i astuce ah, tey nag dañuy nuyu Baye Yero Guèye borom kafe Touba bi moo ñu jox kafe ñu daal di naan waa Fall Damel dañ koy nuyu borom revue de presse yu am solo yooyu ci Thiès Info moom it duñ ko fàtte benn yoon suñu DG Sey Latir Oumar Sey ñu ngi koy ziar bu baax a baax kafe Baye Yero nag neex na tey moom dane ma comme dangaa bëgg kafe dama lay jox kafe waaye bala maa jeexal nag damay nuyu Fodé Bakary si borom Marseille maa ngi lay nuyu di la ziar di la wax nag nga góor góorlu nga xam ni la yóbbu tukki neexul waaye nag sant yàlla góor góorlu rek yàlla baax na léppay baax ñu ngi lay ñaanal yàlla defal la jàmm ci barke Seydina Mouhamed di nuyu Kanasatu moo nekkoon na ci caméra bi Fat Ndaw duñ ko fàtte moom tamit Jabel ñu ngi koy ziar bu baax a baax a baax sama gaay ñu termine ak naan suñu kaasu café kafe baay Réero Guèye de leen ko jënd dee leen ko naan neex na sell na am na ñam am na guu mi ngi noonu maa ngi leen di ziar ay ci sama gars yi ñu termine émission bi ak naan kafe